bismillahi irrahmani irrahim rabbi srax li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli bokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu asbaxnaa wa asbax almulku lillah walhamdulillah wa laa ilaha illa allah wallahu akbar allahuma inna nasaluka xayra ma fi hada lam wa xayra ma baad wa naudu bika min charri ma fi hada lam wa charri ma baad wa naudu bika min adabin fi lqabri wa adabin fi naar mbokk yi Sud FM seen rajo ci waxtaani fajar mi leen defal fajar jot ci waxtu wi dellu si na ci kàttanu sunu borom tabaaraka wa taala ji leen ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk Alioune Sall ginnaaw ma ñu sante yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan jàmm ci réew mi ak réew yu ko wër noo ngi dellu siwaat ci pénc mi wala bokk ci néeg bi tey sunu waxtaan mi ngi jëm ci benn tomb bu am solo ci néegu sëy ñu koy wax al ila al ila mooy góor gu giñal jabaram ne ko fii ak ñeenti weer duma la fi jox ak ay jox ak ay nag tekkiwul duma ñëw sa kër abandonné domicile bi niñ ko aayee jigéen lañ ko aayee góor mu giñal jabaram ne ko fii ak ñeenti weer duñ si yëq dara waaye duñ si yëq dara ba mu la tee di ñëw ci kër gi ba mu la tee di tëdd ci lal bi waaw amaa ne ko fa ñukk nag dem tëddi feneen wala dem dëkki feneen wala tëdd ci suuf loolu normalut waaw nga giñal sa jabar ne ko fii ak ñeenti weer duñu séq dara ndaxte waaw bu boobaa nag da ngay tudd cause li tax nga ne ko nga def ko loolu maanaam su fekkee sa jabar dafa bokk ci jigéen ñi nga xam ne nanguwuñoo bàyyi mees nga di ko ko tere wala nanguwuta nanguwuta julli nga di ko ko digal maanaam ci yooyu nga xam ne yàlla la ko sant sant la ko nga bëgg koo yar delloosi ko ci yooyu lañ la lañ la lañ la may nga def liñ tuddi al ila sunu borom moo ko maye nag ci alxuraan la ko mayee ci saar wu ñuy wax albaqara aaya 227 waaw la la la may loolu góor lillazina yuluuna min nisaihim tarabbusu arbaati ashurin yàlla mu ne góor ñi bëgg a yar seen jabar nga xam ne dañ leen a sant dara ci diini defuñu ko wala ñu tere leen dara bàyyiwuñu ko yàlla nee na may na góor ñooñu ñu téye seen bopp ñeenti weer ñeenti weer yoo xam ne bu bëccëgee yaa ngi kaf yaa ngi fo yaa ngi ree yaa ngi joxe dépense yaa ngi jox yëpp bu ngoon jotee nga tëdd jàpp sa njàmbur bu bët set ba muy ñeenti weer mu ne fa in faa u bu dee bu ci diggante ñeenti weer yooyu bu ndaw si dëppee ne la bàyyi naa li nga may tere wala tuubal naa la wala dootuma ko def wala man rek yow rek laa am gisatuma ndey gisatuma bàyyi soo ma defee nii mu ñaaw sunu borom nee na na fa yem fa inna laa xafuurun yàlla ko bari sutura la rahimun ko bëri yërmande la suturaalal ndaw si yërëm ko ndeysaan ofo allahu akbar ngeen baal ma léeg-léeg suñu borom waxi terme boo xam ne bi bu ko jëkkër yi déggoon yu baree bari duñ ko def waaw yaayi Maodo léeg-léeg suñu borom wax waxin woo xam ne bu ko jëkkër yi doon dégg yu bari duñ ko def déggal rek lillazina yu'luuna min nisaa'ihim mu ne góor ñu bëgg a jubbanti seen jabar yi may naa leen ñu téye seen bopp arbaata ashurin ñeenti weer yooyu tere sa sa jabar sa bopp loolu nag ni ma koy waxee ci conférence yi mooy góor goo xam ne tubarkalla jóngewut bu la teree boppam ba moytul ngeen wuti ko ndax léeg-léeg góor di tukki jabar ja wat wat cin ca tànk ya ne ko ndokk ndax nammeesu la waaw yàlla fii dafa bëgg jëkkër joo xam ne comme tere boppam bala ngeen dem 15 jours nga yëg nga nga am loo yëg waaw lu tax parce que moo daan animé kër gi mu daan waxtaan tey nag mu ne këj guddi jot rek mu ne cel loolu sunu borom xam na ne ku ci dem ak jigéen balaa sori fa in faa ji day daal di am fa in faa mooy bu ñu dëppee fa in rajaw mooy daw si daal di dëpp mooy lan daf doon léttoo mees nga tere ko boppam mu dëgër mu dëgër dëgërlu nga dem tuuti ndeysaan bët set mu daal di firi ko ne la mees lutul daal sama bopp bi mukk na jaay man yow laa am ndeysaan gisutuma ndey gisutuma bàyyi xoolatuma leen sax nag tubal naa la daal di jënd tàngal nag jox la ndeysaan waaw daal di jooy nag nga tàpp tàppal ko daal di dëpp waaye nekk fanaan xamoon nga ne déedéet loolu la yàllay bañ moo tax muy xafuur su fekkee tere woo ko dara nag xanaa jékki-jékki ne këj tere ko sa bopp loolu nag daa xaram góor gu jékki-jékki rek amum ñaareel mbaa nga amum ñetteel nee fa aw bu ñukk fa tasruha kal muallaqa loolu nag moom daa xaram dafa xaram de yonent ba nee na ku yor ñaari jabar mbaa ñett te yemale woo leen yowmal xiyaam booy dekki da ngay paralysé même booy dugg aljana da ngay soox sa ngaam bi bañ sa benn bët bi bañ sa benn loxo bi bañ ak tànk bi nga cullox culloxi te yowmal xiyaam feet googu ak noos googu ko fay cullox culloxi tabarkàlla kenn musul laa gis ngeen baal ma te xam ngeen paralysé ni métti yàlla leen ci yàlla musal te musal ñu ci waaw dem yowmal xiyaam yore AVS baaxut professeur te te te góor ñi am na ci ñoo xam ne mën nañoo wàññi ay baaram ni diw ak diw ci lañ bokk ñoom daañ paralysé maa la ko wax waaw liste liste boo xam ne ñoom ñëpp bu yemul xëy na dinañ paralysé ndax dañoo yemale wut yemale leen maa ngeen takk benn mu ne fa in azamu talaaq bu fekkee nag dem nañ ba ñeenti weer ya mat te góor ga dëpput fase rek fase rek waaye dem ba ñeenti weer yokk ca benn fan dëgganut ginnaaw li nga koy bàyyi li nga koy tere munu koo bàyyi li muy tekk mooy li nga koy tere maanaam ndaw si li nga koy tere moo ko gënal jëkkëram loolu foofu yàlla professeur booy tere booy tere sa jabar dara te nanguwut a bàyyi loola li muy tekki mooy loolu nga koy tere da koo gënal jëkkër ji waaw bàyyil fecc mu ne ah rek foo ko gis muy dóoru pooj li muy tekki mooy fecc mee ko gënal jëkkëram ji yàlla nee na fa inna allah su boobaa yàlla samiun aji dégg la kan moo tooñ ci yéen ñaar alimun aji xam la li ngeen di doxal ci kër gi waaw mu nga ilaa kon ñeenti weer lay am yoo xam ne jëkkër ji giñ na du joteeg jabaram ndax li muy def lii loolu la su ko defee bu ñeenti weer ya matee fase moo ca war a tege walla dëpp waaw walla dëpp loolu benn àq la ci àq yooyu su demee ba nga xam ne ñeenti weer yi mat na nag mu far fase mu jàpp idda yi fasem ku ñu fay fase fasem fay li waxoon naa fase ca tafsir ba suratul ahzab bi dem ajjuma diggante quinze heures seize heures mbokk yi fan yi yëpp li ma doon lim mooy àqi ku jigéen ki fan yi yépp li ma doon lim mooy àqi ku jigéen ki limoon naa ne àq yi ñetti xaaj la yi sëy bi moom yi ku jigéen ki moom yi jëkkër ji moom ma tàmbali woon ci àq yi nga xam ne sëy bee ko moom muy àqub waxtaan ci kaw lal bi lii tax a am doom àqu can ak yi aju ci can yëpp jéemoon nañ koo indi ni muy toll su baree waxtaanu nañ ci can yu seer yi ak nu ñuy def ba mu wàññiku waxtaanoon nañ ci may gu njëkk ñu lay may jabar nga indi lépp tey mbaa nga indi nga indi ca dara loolu lépp waxtaanoon nañ ko ci wàllu can xale bu ndaw bu ñuy mayee kan mooy rëdd rëdd can ga waaw waxoon nañ kañ la can di wàcc ñëwoon nañ ci àq yooyu ba tey àqu ndabi kër ak jumtukaay yi ne ci kër gi waxtaan nañ ci ak àqu dépense ak ya ci war yépp waxtaanoon nañ ci macha allah ni muy toll nuñ koy nattee lu mu tuut tuut nu mu war a toll yooyu yépp waxtaan nañ ci ak àq yi dëkkal waxtaan nañ ci àq yi nga xam ne du àq yi alal lu mel ni yor bu rafet ci kër gi di waxtaan waxtaanu biir kër lu mel ni jéem a aar sa soxna lu mel ni yiir ko ak di ko jox ak ay lu mel ni suturaal ko yooyu yëpp waxtaan nañ ci démb ñu ñëwoon ci planique ak avortement tey ñu doon mottali ñëw ci al ila te mooy yar sa jabar tere ko sa bopp ndaxte nanguwute bàyyi nangam wala nanguwute def nangam ngeen dem ci boobu ñeenti weer nga dëpp mbaa nga fase kon loolu boo ko kenn def mu ñëw nag ci àqi jëkkër yi àqi jëkkër yi jëkkër kon ci àqam lañ jëm ginnaaw bi ñu ba mu bokkee ku jigéen ka àqi néegu sëy bi yii may lim mooy ay àqam bokk na ci àqam ñu di ko topp bokk na ci àqam moom jëkkër ñu di ko topp mu naan def leen nangam ñu di ko def mu naan bàyyi leen nangam wala bu leen def nangam fii xayri maasiya nag ci loolu ak mooy saa bu jëkkër waxee jabaram defal nangam te loola di lu yàlla tere amatul àqu ñu koy topp loolu Abubakar waxoon ca discours am ba atiuni ma ataatullaha fa in asaytuhu fala taati li aleykum xuumu ila salaati yarhamukumullah kon jëkkër moo war naan nañ def ak nañ bàyyi saa bu waxee nañ def nangam te loola wuuteeg la yàlla tëral jabar du ko ca topp su ñëwoon tey ne ko dangaa gis say régal mu ne waaw mu ne ko dama bëgg a joteeg yow ci guddi gi tey day wax ne ko maa bañ du ma ko def ndax loolu daa xaraam yàllaa ko tere wala mu ñëw ne la damaa bëgg a joteeg yow. ci fi ngay ci cër bi ngay demee toilette nga ne ko maa bañ loolu yàlla da koo tere ndax ku def loolu doo dugg aljanna xet ga du la xeeñ yàlla du la xool ak yu demee ni ki yooyu wala doo fi muuroo nga am jabar ne ko nag man muuraay daf maa daf daf maa neexut doo ko fi defee booba bu la ca toppee mi ngi lay topp fii fii maasiyatin ci ak mooy wala man jabar ji meesu la bëgg wala lu tax bañ toogee barab sàngam diw jox la loxo joxoo ko loxo nga ne ko man du ma joxe loxo parce que yàllaa ko xaraamal ndax yonent bi la ko wax mu wax ñu ko kon àqi jëkkër mooy dañ koy topp waaye nag fii xayri maasiya bu kenn defee ne jëkkër dalaa moom déedéet yàllaa la moom jëkkër dalaa takk su ngeen àndee ci yàlla bu ëllëgee ngeen ànd ci yàlla bu ngeen àndul ci yàlla bu ëllëgee ngeen poñante loolu àq la bu jëkkër am ci jabar bokk na ci àq yim am ci moom mooy mu sàmmal ko alalam sàmmal ko boppam alal ji loo ënd ci kër gi na la ko sàmmal ndax di wutit di indil ku mel ni nogay muy saax-saaxee balaa fukki fan ak juróom mu ne tépp la nga indi woon loolu tam day yàqub sëy jigéen du yàq alali jëkkëram ndax yonent bi ne nag wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi yowmal xiyaam dañuy laaj jigéen alal ji jëkkër ji nu indi ci kër gi lu tax ñu passer passer ko dañuy auditer yàlla dana auditer toutes les femmes bu fekkee noonu lañ koy waxee auditer leen sàmmal ko sa bopp ba góor gu tàll loxoom di jëme ci yow sax nga ne ko mukk waaw waxuma laa di fa weesu bokk na ci àq yi nga xam ne moom la jëkkër am ci jabar lépp luy xatal ku góor ki di ko indil ay benke ñenke ki ñamatoos ki jafeñ-jafeñ loola jabar dañ ko wax ne ko da ko war a moytu ndax loolu ñëkkal soxar kanam ba du xam lu xew walla mu xool la du xam du xàmmee kii ak kim fi bàyyi woon yooyu ay àq la yoo xam ne ku ne war na cee bàyyi xel sa jabar sa jëkkër buy ñëw daal dañu bëgg mu séen sa bëñ dañu bëgg nga muuñ dañu bëgg nga waxtaan yonent ba sallallahu alayhi wa sallam ci hadis bu ñu jëlee ci sunu yaay Aïcha radiyallahu anha mu ne jenn waaye da koo fekk mu toog mu ne ko yaa rasulallah ayu nnaasi azamu xaqan alal mar'a góor ñi ku ci ëpp sañ-sañ ci jigéen ñi mu ne zawjuha waaw yonent bi nee na jëpp jigéen juy sëy sa jëkkër moo ëpp sañ-sañ ci yow mu ne ko fa ayu nnaasi asamu xaqan ala rajuli mu ne ko ummuhu gan kan nit kan moo ëpp ay sañ-sañ ci góor mu ne ko ndeyam mu ne ko nit kan mu ëpp ay sañ-sañ ci jigéen mu ne ko jëkkëram kon diggante jëkkër ak jabar ndekete sañ-sañ bi jëkkër am ci jabar baay amatu ko ca yaay amatu ko ca nit ñi nag dañuy sëy ba noppi baay ji dugal loxoom ca sëy ba di wane sañ-sañ yu ëpp sañ-sañi jëkkër léeg-léeg ndey dugal ca sëy ba ay sañ-sañ yoo xam ne mooy ëpp sañ-sañi jëkkër bu meree jëkkër ji bëgg doomam mere ko su jéppee jëkkër ji bëgg doomam jéppi ko te boo ko jéppiwut mu ne génn naa ci yow àdduna ak àllaaxira waaw noonu loolu ñuy nappe way sëy yi génn naa ci yow àdduna ak àllaaxira ndeysaan bu tegee ci lu normal yaatoo ñëw ko yow yow yow yow ndaw si waaye bu tegul ci normal du la wàññi dara fala tutihuma kon nañ déglu yonent bi cim njàngaleem sallallahu alayhi wa sallam mu ne dañ ko laajee ayu nnaasi azamu xaqan ala al mar'a mu ne zawjuha fa ayu nnaasi azamu xaqan ala rajul mu ne ummuhu kan moo ëpp ay sañ-sañ ci jigéen mu ne jëkkëram kan moo ëpp ay sañ-sañ ci góor mu ne ndeyam sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam yàlla na nu yàlla baaxee ba nu mën a topp njàngaleem mi laqad jaakum rasulun min anfusikum ndeysaan ndeysaan laqad jaakum rasulun min anfusikum moom suñ tubaa ne ko waaw waaw tabibu ahli saqami ñi feebar ñëpp yaay seen médecin yaay seen docteur ñëpp ay faju yonente ba alayhi salaatu wasalaam ngir dëgëral wax jooju mu ne law amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu lmarata an tasjuda li zawjiha min izami xaqihi alayha su ma doon digal nit muy sujootal nit dama naan jigéen sujootalal sa jëkkër dëppal sa xar kanam ci suuf sa ñaari tànk sa ñaari bëti wóom sujootal ko ndax ak xam yu rëy yi ci yow mu ne su doon digle sujoot loolu lay wax allahu akbar kon àqu jëkkër a ngoog ci jabaram ndekete su jëkk su jëkkër ji ne woon jabar ji kaa ñu kaa ñu dem Mali yaay ji ne ko du dem ah kaa ñu dem Guinée Bissau yaay ji ne du dem kaa ñu dem Portugal yaay ji ne du dem ndekete jëkkër ji moo ëpp ay àq moo ëpp ay sañ-sañ bàyyi ji moo ci ëpp ay sañ-sañ day ndax kat daf ko koo may léegi defe naa maye moom ku ne xam na li muy tekki waaw oustaz Ablaye Lam hadis boobu Abu Daawud nettali na ko ak Tirmizi ak Ibnu Maaja ak Ibnu Xibbaan waaye bu ñu demee ci alquran suratul nisa aya 34 muy saar wi yàlla tudde jigéen ñi day sànn wax ci ak ñoom wax yu yi ba mu wax ci biir saar wa di melal jigéen ju baax waaw mu ne fa saalixaatu xaanitaatun xaafisaatun lil xaybi bi ma xafisa allah mu ne jigéen ju baax day topp jëkkëram ndeysaan jigéen ju baax day topp jëkkëram alxaanitaatu hiya taiaat looloo tax ma koy misaal ci suñu waxtaan yi un ak zéro jëkkër ak jabar jabar nag mooy zéro jëkkër mooy un léeg-léeg nag zéro ni mu yokki xaalis bokkut ak bu un ñëwee ni mu yokki xaalis ala kulli xaal zéro bu toppee ci ginnaaw un dix la bu zéro nekkoo ci kanam un zéro la mooy jigéen ju fexe ba sa jëkkër topp la zéro nga jigéen ju fexe ba topp jëkkëram dix nga kon zéro na topp ci ginnaaw un muy dix bu toppee ci ginnaaw deux ñuy vingt bu toppee ci ginnaaw trois ñuy trente bu toppee ci ginnaaw quatre ñuy quarante wax ak sax waaye zéro dong zéro rek. bu nekkee ci kanam un zéro bu nekkee ci kanam deux zéro bu nekkee ci kanam trois mbaa kanam quatre zéro zéro daal ne ci kanam da koo jigut moo tax jigéen fexe ba jëkkër ji di ko topp baaxul ci moom baaxul ci njabootam baaxul ci mbokkam mu ngoog nee na su jigéen toppee jëkkëram wodd bu dëgër loolu mooy li nga xam ne moo gën a kawe ci àq yi nga xam ne te doomul xayaatu zawjiya wa tasaat yonent ba mu ne sallallahu alayhi wa sallam xayru nisaa'i jabar ji gën ci jabar yi man iza nazarta ilayha sarratka jabar joo xam ne boo ko xoolee xool ba kontaan loola kon bokk na ci àqi jëkkër fu mu xoolee jabar na jabar kon na na kontaan ndax na jabar mel waaw nga xool xar kanam bi kontaan xool col gi kontaan mu muuñ la ndeysaan nga muuñ ko tabarkàlla muuñaay yi di neex ba mu yàgg mu jege la te te tabarkàlla ma yem foofu wesa amartaha ataatka boo ko digalee mu topp la wa isa xibta anha xafisat xafisat ka soo fa nekkut mu sàmm mu mu sàmm la ci boppam sàmm la ci sa alal dencal la boppam sàmmal la sa alal yooyu yu ama am solo la ci pénc mi ci àqi jëkkër ci jabaram àq yooyu nga xam ne moom la jigéen ñi defal jëkkëram nag yonent ba aleyhi salaatu salaam nee na jihaad la fi sabilillah jihaad la fi sabilillah jigéen ñi dañoo ñëw ca yonent ba ci nettali ibnu abbas mu ne ko yaa rasulallah yonent bi ne ko labayk mu ne ko ana waafidu nisaa'i ilayk man maay délégué femmes yi ci yow femmes yi ñoo ma délégué ci yow ma wax ceeg yow waaw maay seen porte parole jënn jigéen waaw ngeen baal ma ci fi ñu toll ci tafsir ci suratul ahzab bu fekkoon xarkana mu jigéen awra la keroog la yonent bi wax naan ko du ma wax ak yow demal demal defi voile intégral waaye yonent bi jàkkaarloog jigéen ji mu ne ko man kat man la jigéen ñi délégué ci yow mu ne ko waaw mu ne ko haazal jihaadu lii mooy jihaad ma bëgg cee waxtaan ak yow mbokk yi nanu déglu soxna si su ëllëgee incha allah délégué bu jigéen ñi fii nag dañu ak si war a yëkkate jataay bi ndax suñu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nii taxawir seen i kayit bëgg la fi ñu fàncal xibaar tubaab fi ñu fàncaloon ko ci wolof ñu ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi yàlla na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara ki nga naan daloon ci waxtaan moo di seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al islaaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu